bismillah alhamdulillah inna waliyallah assalamu aleykum wa rahmatullah monsieur le premier ministre chers frères monsieur le ministre du travail chers ministre présents dans la salle chers collègues députés cher euh, chers spectateurs je vous salue euh, monsieur le ministre monsieur le ministre je vais vous témoin d'une chose Je sais qu'aujourd'hui, je peux demeurer sur ma position que le président de l'Assemblée nationale n'a pas les coups de frange pour diriger cette Assemblée nationale. Monsieur le Président, je vais vous dire une chose. Ici, ce n'est pas votre demeure. Pour que vous vous permettiez de dire à un député assis là-bas à demander un droit que le Sénégalais lui a permis, je vous bottez votre droit, vous n'avez pas le droit de parler, et sinon, vous allez sortir de la salle. Yaay kan doo mbay doo ceeb doo Ibra vous êtes passable mënoo diriger assemblée bi lii fi xew yépp nag yow yaa ruy laax bi yaa yow yow yaay ki nga xamante ne soo toogee ci assemblée bi da ngaa jàpp ni da nga war a yuuxu pour te faire respecter da nga war a griller pour te faire respecter mënoo ko doo am man maa la ko wax Abdou Mame Diop parce que doo fi nekk fi jàpp ni da nga war a jàpp opposition bi di leen museler jàpp sa waa parti di leen defalu leen neex parce que su fekkoonte tene ni nga commencé noonu noonu ngay continuer lii tay du fi am yaa ko fi créé yaaru ruy laax bi yaay doma daa yaay ceeb yow la du keneen mais man moom Mame Diarra Fam man mënoo maa museler fii nga ma fekk et vous n'êtes pas des meilleurs des présidents dañ laa tooj ba ca kaw mais dans cinq ans que vous avez duré dans cette assemblée vos discours ne feront pas Donc comment fait-il que vous soyez le premier président de l'Assemblée nationale Je vous dis que Sénégalais ku ko yor da nga koy yor ci yërmande da nga koy yor ci xol bu laab da nga koy yor ci caractère monsieur le premier ministre nous demandons tout simplement la clémence man sama bopp wax nag jóobaale ma ci kenn pour nos collègues députés ils ne méritent pas par les écrits de ce monsieur d'être emprisonné parce que man mi di wax ak yow duma nañ ma fii ci salle bi te tarawul kenn yóbbul kenn assemblée assemblée bi door nañ fi ministre Omar Sarr xotti mi ngi nee toog sa ginnaaw nekk sa premier ministre bindu kii ak moom jarul duma sa doom man maa la ko wax man maam jaara faam te man lu ma dala wax toog fay jooy bàyyi leen suñu collègue député yi ñu ñëw toog fii ndax kii koy laaj laaju ko pour dara seytaane fu na lay dugg seytaane fu na lay dem te seytaane yi nag ay tànk lañ am ak ay ay robb ak ay ay yenn saay sax yëre yu ñuul la ñuy sol toog wala yu vert toog fi ci assemblée bi amee nit ñi laa wax seytaane yenn saay yëre bu vert lay sol toog ci assemblée bi dama leen di waxal lu bariwul bàyyi leen suñ collègue bi je vous